بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يون وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي غور بن حاج سنة النبوية 1 2 3 نيجي نيو دلين زيار دلين يانا يا توفيق في الدنيا والآخرة دلين بال آخرة دلين بال دنيا برمي سبحانه وتعالى وبولا نيو جيغل دي سنتات برمي بباخ تخيولي بارين خمان تلي دفل لنكو تنتقو خمنا أما تعمل يا مكاي di sant borom bi moom mi nga xamante ni may nañu ñu woor weeru koor bi ci jàmm ba weesu ko di ñaan yàlla mu nanguñu koor gi nga xamante ni woor nañ ko waaye mu nangu ñu bépp jaam yàlla ba xam def nañ ko ci waaye mu saxal ñu ci ñu di ko jaam ba keroog ñu koy wuy ji te mu nanguñu jaam yooyu yëpp waaye ñu koy ñaan may ñu fekkee weeru koor yu baree bari te mu nanguñu yëpp waaye di ziar bu baax a baax suñu borom xam-xam yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ak ñun. te ba tey tegguñu seen tànk ci di fi wàcc seen xam-xam yu sell yi macha allah mi ngi leen di ñaanal borom bi subhanahu wa guddal seen fan yokk seen xam-xam te barkeel ko eh, di wax ni lépp lu fi wàcce gis nañ ko kenn yàlla fay leen ay yiw yu baree bari def leen seen misaan xasanaat di ziar eh, suñu mbokk soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci biir groupe bi di ci jiital la sage grande dame si daara Matoulaye Maw di ko jox nuyoo bi mu jaarale ñu ko ci suñu mbokk soxna yi waaye ñu ngi nuyu képp koo xamante ni yaa ci biir groupe bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay waaye di nuyu ak di ziar borom place bi di Seyda Fatima Lo di ko ñaanal borom subhanahu wa mu yokk wér bu baax a baax teggi ko lépp loo xam ne métti la ci yaramam di yàlla mu yombal lépp lu aju ci fajam ko wér mu wér jàmm ba dellu ci njabootam. waaye dellu ci activité yam yow mën a borom subhanahu wa ko yàlla defal waaye di ñaanal bépp membre boo xamante ni tawat ga di nuyu ak di ziar soxna umul xayri mi nga xamante ne moom lañuy ñuy ci émission bi di dénkaane ci néegu sëy comme ni nga ko baaxee woon di ànd ak Seyda Fatima Lo ñu toogandi place bi di fi jéem a remplacer suñu mbokk suñu xarit suñu doom ndey Seyda Fatima Lo incha allah di ñaan borom bi mu yombala ko mu ñëw ba toogaat ci place bi yal na ko yàlla defal ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di nuyuwaat bu baax a baax mbokk yëpp di wax ni suñ mbokk soxna yi dénkaan yi nga xamante ni moom lañ fi doon rotal ci koor gi di ci giital suñu bopp di ci teg mboolam soxna boo xam ne ñuy déglu di wax weeru koor gi jeex na waaye koor jeexul jaamu yàlla jeexul kon nañu góorgóorlu bu baax a baax ci jaamu yàlla yi nga xamante ne borom subhanahu wa sant nañu ko te muy li nga xamante ne mooy sababu li tax yàlla indi ñu fi ndax borom subhanahu wa taala nee na wa maa xalaqtul jinna wa insa illa liya'budun bind ma nit ak ginne doon ñu jaamu ma kon nañu góorgóorlu ci sax ci di ko jaamu ba keroog ñu koy fekk te mu nanguñu yëpp yaa nañ ko yàlla defal di wax ñëwaat nañ ak yéen tey ci seen émission dénkaane ci néegu sëy soxna amul xeer mi nga xamante ne moom lañ baaxoo di ci àndal te dafa am gànt incha allah ngeen ci ànd ak seen mbokk Seda Mariama Dieng di wax comme nañ ko baaxoo di defee di indi saa su nekk ay tomb di ci waxtaan ci biir néegu sëy noonu lañ ko fas yéene defaat tey incha allah ñëwaat ci li nga xamante ne mooy biir néegi di wax ñi nga xamante ne ñoo ne ci biir néegi muy borom kër ak soxna ndax ñooñu ñoo nekk ci biir néegi di wax mbokki jullit ni bu ñu amee seetlu bu baax a baax ci ni suñu sëy di doxee ñu xam ne ay sooxe ay rëq bari na ci lool ci sëy ay yëngu-yëngu ay rëng-rëng yoo xamante ni mu ngi ci biir sëy ba jëm ci li nga xamante ni moom mooy divorce yu bari yan ci yàlla musal bu ñu xoolee dinañ bokk ànd seetlu ñun ñëpp problème yu bari ci biir sëy Eh, di wax ni bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk faw ñi laalante waaye incha allah laalante boobu taxul ñu séparé wu laalante boobu taxul mukk ba tey làmmiñ génn ci biir gémmiñ taxul mukk bëñ tamit génn ci biir gémmiñ kon eh, loolu lu mënta ñàkk la waaye buñu ko jël def ko li nga xamante ni moom mooy eh, chaque jour rek ñu nekk ci chaque jour ñu nekk ci déedéet mbokk yi bu ñu fàtte ni li nga xamante ni moom mooy sëy jaamu yàlla la borom bi subxanahu wa moo ñu ko defal mu bokk ci xéewal yi nga xamante ni xéewal yu rëy la ndax soo xoolee ci li nga xamante ni ci lañu borom bi subxanahu wa taala di eh, defal muy loo xamante ni day dagan loo xamante ni buñ ci jaaree rek daganal diggante góor ak jigéen ñu mën a eh, seq li nga xamante ni moom mooy sëy loolu soo xoolee nga xamante ni ci kàttanu borom bi la waaye ci xéewali borom bi subxanahu wa taala la. kon li nga xamante ni moom mooy sëy jaamu yàlla la te jaamu yàlla may yox ni su fekkee bëgg nga tuyaabaya bëri ah war nga ko rafetal bu baax a baax sént ci fayu ki nga xamante ni moom moo ko sant muy borom bi subhaanahu wa taala kon su fekkee ne dañoo jël sëy bi def ko muy jaamu yàlla kon lépp lañ ciy def dina rafet waaye kenn ku ne dina xool position mooy taxawaayam lañ ko ca sant ci biir sëy bi ay àqam dina ko xool ay àq mbokk julitam bi nga xamante ne moom la ko borom subhanahu wa boole dina ko xool bu ko defee dinay suuraale yu bari maanaam du def li nga xamante ne day gaañ mbokk jullitam mbokk jullitam tamit du def li nga xamante ne day gaañ eh, ki nga xamante ne moom la ko yàlla booleel ndax eh, mbokk yi bu ñu xoolee ñaari nga xamante ne ñoom la yàlla boole di ñaari mbokki jullit kon mbokk dox na fa laata ngeen booloo muy kii julit bu góor bi ak jullit bu jigéen bi te borom subhaanahu wa taala nee na innamal mu'minuuna ixwa jullit ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla mu ne ñi ñi nga xam dañoo gëm yàlla ay mbokk lañ yàlla nee na ñi nga xam dañoo gëm yàlla ay mbokk lañ kon su yàlla boole ñaari jaam yoo xamante ne dañoo gëm yàlla mbokk lañ déjà ñu war a ñëw nag eh, signé pacte boo xamante ni li leen lu rëy lay doon muy sëy mbokk yi xam nga ne sëy fu mu dox caaxaan nekkatu fa sëy fu mu dox lu rëy dox na fa kon loolu dañoo war a xam ne lii ñu dugg nii lan la ndax yaakaar naa ni bokk na ci li nga xamante ni mooy indi problème yu bari ak divorce yu bari ñàkk xam li nga xamante ni li ñu dugg mooy lan ak oyofal guñ ko oyofal euh, jàppe ko li nga xamante ni moom mooy lu oyof ndax tey ndeysaan dañoo jàpp ne sëy daal bànneex kese la te fekk na romb na loolu bu yàgg di dem romb na loolu bu yàgg mi ngi noonu kon li ci njëkk mooy ñu jàpp ni li jaamu yàlla la kenn ku nekk mu xool li nga xam ne moom la ko borom subhanahu wa taala sant ci mbokkam mu jéem ko taxawee kent lay kàttanam bu ko defee ñuy diisoo di waxtaan eh, di jàmmoo saa su nekk di jéem a jëmbat jàmm ci seen biir yaakaar naa ne loolu bu ko defee kenn ku nekk danga am ak dal ci eh, biir néegu sëyam waaye ku nekk di nga am dal ci moroomam ndax loolu rek lañ ci doon séntu bi ku ne am dal ci sa moroom waaye su fekkee kenn ku ne dangaa dem bayam ay fitna ci sa moroom ah kon am na lu ngeen bàyyi wala fa ngeen fañ leen jaarloo wala yoon bañ leen tegloo teguwu leen ca kon na kenn ku nekk xool moom lan la ko borom bi subhanahu ci moroomam mu fexe àq yi nga xamante ni amal na ko moroomam mu di ko jéem a sàmmonteeg moom chaque jour te di ko jéem taxawee ci kéemtalaay kàttanam boroom kër bi nga xamante ni moom mooy góor borom bi subhanahu wa taala jël eh, daraja jox ko góor ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa kon chaque jour góor moom mooy féete kaw li nga xam moom mooy jigéen pouvoir diggante góor ak jigéen góor la ko borom bi subhanahu jox kon képp kuy soxna tamit nga xam loolu boo duggee ci sëy nga xam ne kii la yàlla booleel muy góor bu ko xeeb mu ndaw ndaw ndaw sa borom kër la bu ko xeeb tuuti na wala mag naa ko wala amul amul am am amul am koom parce que nga xeeb ko déedéet lool yëpp bu ci dugg ndax borom subhanahu wa taala da koo yëkkati ci sa kaw kon nangul yëkkati googu nangul kilifteef googu nga xamante ni am na ko ci yow ndax borom bi subhanahu wa taala nee na wali rijaali alayhinna daraja kon da ngay nangu yow soxna si daraja ji nga xamante ne sa borom kër am na ko ci sa kaw nangu ko su ko defee soo ko nangoo rek daal di nangu kilifteef googu dangay daal di noppalu waaye mënoo yow ki nga xamante ne yaay sama mbokku jigéen sa borom kër takk la indi la ci kër gi romb jigéen ñëpp xool la tànn la ndax xam ngeen ni comme niñ koy waxee soxna boo koy gudd danga koy tànn nda noonu it borom kër boo ci dugg danga koy tànn nekkool n'importe qui rek ngay romb dugg ci mom déedéet ndax damay wax ne sëy képp ku ci dugg danga ñaan yàlla nga nga ka ngay àndal ngeen sax maanaam ngeen dund ba dee rek tàqali leen te ñaan yàlla mu yeex ñaan nga yàlla seen sëy boobu ngeen dund ba dégg ci ay maam kon loolu moom képp koo koy defanteel war nga koo tànn war nga koo xool bu baax a baax mu doon koo xamante ni exemplaire lay doon mu doon koo xamante ni ku baax lay doon waaye koo xamante ni ku nangu ku nangoo sëy nangoo toog kooku lay doon nangoo muñ ndax ku ne sëy xam ne lim làmbo yëpp bari na soo bëggee sëy yow sama mbokk jigéen faaw nga nangoo mën a muñ faaw nga nangoo toog ba pare li njëkk mooy nga nangoo toog mais mënoo nekk jigéen bëgg sëy te nanguwoo toog déedéet ndax loo xaar du la fa fekk faaw nga toog nag di xaar di muñ sëy moom li ko neex barewul waaye nañu ko jéem a neexal ñun jigéen suñ ko jéemee neexal rek incha allah di ñaan borom subhanahu dina taala dinañu dimbali bu defee ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu borom kër tamit ñu jàppale ñu bu defee kër yi mën a am dal ñëpp mën a dund ci jàmm kon mi ngi noonu léegi yow mi nga xam yaay sama mbokk jigéen nangul kilifte fi nga xamante ni sa borom kër am na ko ci sa kaw nangul daraja ji nga xamante ni sa borom kër am na ko ci sa kaw bu ko defee boo ñëwee ci kër gi toog xam ni kii sa kilifa la nga jox ko cëru kilifte fam ba mu mat sëkk looy def mu yëg ko looy def nga tàggu ko balaa ngay dem tàggu ko ngay lijjanti yenn nga wax ak ci ak moom waaye doo tëb di def say décision bopp di jël say décision bopp ci kër gi def la neex ak di wax la nag di dem fu la neex te doo tàggoo ba pare yenn yi tamit nanguwoo ku la yilif loolu tamit day metti parce que jigéen moom mënoo ne ci kër di sëy nekk sa borom kër nga ni nanguwoo mu yilif la loolu moom mënul nekk mënul nekk kon jigéen day nangu ko ilif su fekkee ne bëgg na am dal ca néegu sëyam waaye bëgg na faa jur ay doom yu baax day nangu ñu ko mu daal xam ne kii mu nekkal nawleem la waaye kii mu nekkal kilifaam la sañu maa def dara te tàgguwuma ko sañu maa dem fenn te tàgguwuma ko sañu maa jël samay décision te tàgguwuma ko kon dañu sóoraale lool bu baax a baax bu ko defee nga rafetal nekkin nga xamante ni moom nga war a nekkal ak moom ndax bul fàtte ni borom laa takk ngir fegu yow sama mbokku jigéen kii nga xamante ni mooy sa mbokku góor di sa borom kër yàlla dogal ngeen ànd daf laa takk ngir fegu ngir bañ a dugg ci li nga xamante ni moom la ko borom subhaanahu wa taala di tere waaye ngir mën a fegu moo tax mu dem xool la ci jigéen ñi tànn la jële la ci sa kër indi la ci biir këram yi am yaakaar ci lool kon ngelawaay fexe ba yaakaar boobu ko tas kon li tax mu indi la fi sàmmanteel ak moom bu baax a baax mënoo ñëw tamit ci sa kër kër tamit nga ni doo ko nangul maanaam doo ko satisfaire ci li nga xamante ni moom mooy ay besoin yam loolu moom mënul nekk wax dëgg yàlla ndax bari na ay góor ñoo xam ne ñu ngi tàbb ci yenn yi di tàbb ci yenn njumte di tarxiis euh, seeni soxna yu ci bari ñoom ñoo leen koy teg wala ñu dugg sax ci loo xamante ne mënuñu ko seen soxna ñoo leen koy teg kon jigéen dafa war a nangul borom këram bu baax a baax ñu ne nangu nag xam ngeen fi may waxee kon war nga sàmmante ak yow ci sa biir nekk ci la nga war a séq sa borom kër ba loolu moom nga góorgóorlu sa lay kàttan ba borom kër gi bu ca jógee bu mu dina ko fees ba du xoolaat leneen ci biti kon jigéen war na am nu mu mel kon jigéen dafa war di taaru fu mu toll ci kanam borom këram xam ne buy génn ci biti ba subhanahu wa taala daf koo sant mu muuru sol lu jot génn ci biti ndax amul droit awraam di feeñ wala yaramam dara di ci feeñ ñeneen góor di ko gis kon mën nga muuru ci biti solo lu jot ci biti waaye soo duggee ci sa biir kër nag soo duggee ci sa néeg bi yaa ko moom ngalawaay feesal sa bëti borom kër ngalawaay del taaru ci sa kanamu borom kër ngalawaay sa borom kër na xam ni kat wax dëgg yàlla jigéen la fi fekk na xam ni kat jigéen la jàkkaar lool waaye na sentir ni jigéen la jàkkaar lool waaye na sentir ni jigéen la nekkal kon la ma nga xamante ni moom lay soxla ci biirum néegam ngalawaay euh, góorgóorlu bu baax a baax ci di ko saa su ne góorgóorlu lu baax a baax ci sa kéemtalaay kàttan ba du ca namm dara moom ki nga xamante ni moom mooy euh, góor waaye di wax ni suñu mbokk góor ñi tamit ñu ngi leen di soññ ñaax bu baax a baax ñu gën a góorgóorlu ci soxna yi ndax euh, wax dëgg yàlla am na soxna yoo xamante ni sonn nañu am nañ naqar ci seen biir néegu sëy te dara tegu leen ko seeni borom kër kon góor day muñal ki nga xamante ne moom mooy jigéen góor day muñal ki nga xamante ne moom mooy soxnaam te xam ne kii ku néew doole la ndax comme ni leen ko waxee euh, mosuñoo dégg ñu ne góor sàngam may nañ ko jigéen sàngam déedéet loolu rek xigma la boo xam ne borom subhaanahu wa na ko ci mbir kon bu ñu dee xool rek ñu war a xam ne dëgg-dëgg li yàlla def am na tax mu def ko kon yow am na lu la war yàlla dafa jël say daraja yëkkati ko ci kaw jigéen yàlla jël la boo tàmmee jigéen ji nga bëgg nga dem waxtaan ak ay kilifaam bu defee ñu dox ci ñoom lañ ca war a dox doxee ko nañ ko war a doxee borom subhaanahu wa ta'aala daganal seen diggante waaye nu ñuy def waa ko moom ndaw sax waa ko moom jigéen ja muur ko moom jekk wuñ ko bëccëg de indiwuñ ko fajar wuñ ko digg bëccëgum dara kaam dañoo bàyyi ba gudd ci sutura ñu muur ko indi la ko sa kër foo dëkk nu mu sori sori foo dëkk nu mënti mel xooluñu ko foo dëkk ni mënti euh, euh, sore tamit xooluñu ko ñu daal di koy muur indil la ndeysaan ndaw si tamit nangu ba bëgg a ñëw nangu laa toogal sa kër nu mënti mel mu toog di muñ ndax euh, am na loo xam moo leen liyee muy mbëggeel kon mbëggeel ak yërmande de na dox seen diggante looloo tax foo nekk bëgg na noomeel bëgg na ndax am na lu leen liyee ba pare muy mbëggeel te nekkul loo xam ne ay la nekkul lu ñuy fooy te xam ngeen ni yéen suñu mbokk góor yi jigéen ñi seeni bëgg day metti lool te bu leen ji basé wu ci bëggeel googu nga xamante ni jigéen ñi bëgg nañ leen ko ngeen leen di def lu leen neex di leen teg ay coono ak métti di naqara xool yoo xamante ni duñu xam fu ñu koy waxee ndax ki nga xamante ni dafa ñëw si sa kër am yaakaar ci yow am yaakaar ci yow ne fu bëtam xonke rek yaa ko mën a fajal fu bëtam xonke yaa ki ko mën a lijjanti kooku su fekkee da ngaa ne di ko xor ñoo ñal ci ni mu la bëggee di ko teg ay coono di ko teg ay métit yoo xamante ne kenn xamul lu doon moom dina jaaxle lool lool lool dina jaaxle parce que yow yaa nekkoon dooleem yaa nekkoon force am yow yaa nekkoon ki nga xamante ni moom foog na ni lépp lu tegu ci kanamam rek yow boo ñëwee da nga koy dégager kon ko am na fu la xoolee kon yow sama mbokku góor nga la waaye yërëmal soxna si yërëm ko kii bëgg ba ñëw sa kër toog di la muñal loo am ak loo ñàkk moom xoolu ko ndax bëggal gi ci boppam moom Eh, ëpp na ko doole ci yow noomil baax na noomil bëgg na loo ko jox bëgg na loo ko eh, jàppe rek moom bëgg na mi ngi toog di la muñal di jural ay doom te xam ngeen ne sëy fa doom xasee fa dox tamit ah gën naa suudewu lale kon gën naa suudewu bu baax a baax a baax kon seeni deret gën naa jaxasoo waaye ngeen xool ci nga xam te ne moom mooy njaboot gi doo fekk bu boobaa nag doo jël soxna si du ko traité num la neexee di ko këll ndax bari na ci góor ñi ñoo xam tamit soo xoolee seen soxna rek mere leen ah, nañ leen di téye nañ ñi doxale ak ñoom metti na te ndeysaan xam nga jigéen fu mu bu xës fa am doom moom ah, demaat feneen du ko bëgg génn ci kër googu du ko bëgg ndax doom ji xës na ba judd ci seen diggante kon dëgg yàlla na kenn ku nekk ci sa boroom ragal sa boroom ci sa moroom kenn ku nekk na ragal boroomam ci moroomam àq bi dox sa digganteeg moom yow sama mbokku uh, góor soxna si la yàlla booleel yaa ko war yiir yaa ko war a dundal sa kemtalaay kàttan dundal ko defar ko uh, yaa ko war a defal wodd ko macha allah lu gën a solal ko te xam ndul lépp yow sa sa bët ndax boo ko solalee jox ko mu soloo mu santee ko toog jàkkaarloo ak yow yaakaar di nga kontaan boo ko yefalee jox ko mu lekk ba suur bu jongamawee macha allah nga sa xol gën a sedd waaye ku ko gisit xolam sedd na dina xam ne yow mi yar nga soxna si ëllëg bu demaate ci ay mbokkam dina xam ne kii ñu may seen soxna seen doom kat wàccuñu ko may nañ ko ko jara may soxna waaye may soxna léeg-léeg nga jël jigéen ndeysaan yóbbu ko ci kër mu sëy at ma del si boo gisaatee da nga yaakaar ne ki dañ ko changé fekk changé ko lañ koo weccoo fekk du lool am na góor ñoo xam ne ndeysaan mun ñoo yor jigéen kon jigéen da koy yërëm di waxtaan ak moom di diisoo ak moom waaye doone jigéen la maa koy yilif kon lu ma neex laay def samay mbir yoonam nekku ci nu ma neex laa koy doxalee déedéet du noonu nga la waaye ba ko xeeb waxtaanal ak moom mooy sa yaayu doom ah, mun nga waxtaan ak moom donte du lépp lañ koy wax nag waaye nag di leen diisoo nag ci seen mbiru kër ci seen mbirum sëy mi di leen ko diisoo pour fekk ngeen nek si jàmm kon ñu ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu jàmm ci suñu sey waaye mu may ñu ñu gën a jubóog suñu borom kër yi yàlla barkeel njaboot nga xam def na ko ci diggante yi ñu ngi jéggalu bu baax a baax rëfe-rëfe njuumte yi xam am na ci waxtaan wi lépp lu jub ñu xam ne ci borom bi la subhanahu wa ta'ala lépp lu dëng ñu xam ne ci man mii la ñu ngi jégalu borom subhanahu wa taala ndëngte jumte dinañ ko jégal wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi